ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam di leen balu àq di leen bal àq ci korite gi di ñaan suñu boroom mu nangul ñu suñuy koor te sotti jàmm ak xéewal ci réew mi ak ci askanu senegaal ak ci jullit yi ci àddina bi yëpp ak ci àddina bi yëpp di rafetlu bu baax di santaat yàlla bi mu ñu mayee ñu mën a teewaat jullit gi fii ci euh, ginnaaw imaam Ndiour déglu xutbaam nga xam ni toujours daf ñuy teg ci yoonu njub daf ñuy teg ci yoonu mandute di fàttali li yàlla ak yonent bi santaane ñu koy sant di ko ñaanal bu baax yàlla bàyyi ko fii ci suñu kanam te mu ànd ak wér di présenter mes vœux à l'ensemble de mes concitoyens thiessois et à l'ensemble du peuple sénégalais mu ci wax rek mooy li am solo mooy nekk nekkatuñu ci jamono wax wax nañu campagne nañu peuple bi décidé na ci jamono jëf la ñu nekk ak ci jamono xaar résultat donc ñi nga xam ni ñoom la yàlla teg réew mi ci seen loxo ñu leen di ñaanal yàlla kàttanal leen ba li ñu digaate ñu mën ko mottali te mooy wàññi dund gi wutal nit ñi liggéey teg réew mi ci njub waaw ci li ma daan yëngu rek ci samay activité professionnel ak samay activité politique Beaucoup problème d'abord présenter mes voeux à l'ensemble de mes concitoyens de Thiès et du Sénégal et prier pour que à l'occasion de cette corité, Allah le Tout-Puissant déverse dans le Sénégal sa miséricorde que la paix règne que la prospérité soit au rendez-vous et rendre un hommage à l'imam qui a renouvelé son sermon sur la base des enseignements euh, du Tout-Puissant et du prophète Mohammed Et prier également pour lui, pour une longue vie euh, remplie de santé, pour qu'il continue sa mission à la tête de la mosquée. Je voudrais également me réjouir du contenu de son sermon qui a porté effectivement sur l'actualité. Et comme je l'ai signalé, le temps est venu de l'action. Hein, le temps du débat est clos. Le peuple a décidé souverainement. Nous acceptons cette décision-là et prions pour que les nouveaux dirigeants délivrent les résultats qu'ils ont promis au peuple sénégalais. Moi, je suis au service du pays. Donc, je resterai toujours au service du pays, quelles que soient les circonstances.